guddi ñu toll maa moom may baax ni ko xale yi di waxee. waaw dañ ñoo may xanaa mayoo ñu. boo solee col gu bon foo romb ñu naan kii ana ndeyam ana bàyyam loolu da ngeen war a bàyyi xel. loolu moom dëgg la. koor gi ak lu jëm ci wàllu diine yi. waaw su ma paree ci yéen. yow sa xam-xam weneen jëw ma ko. jàngale diine du yomb. bu ma la ko doon nital kon ñibbi nga bu yàgg. nit bi lay jox loxo saa nga mën ko jox loxo mais di la jox nga koy jox catu loxo tam nga yee ko. ma ne man loolu yëpp waxuma ah, gaawal damay damay seet si. dama la tere jàng. kan. waaw lu ah, loolu moo tax nga woo moo tax ma woo la. dama am ngànt. ngànt ak lan. dama am ngànt nga naan ngànt la. waaw ngànt ak lan man dama gisul ngànt si en tout cas kenn du ko topp ba mu sës waaw waaw jàng boo xam ne andi saaf si kër gi muy teg ay principe bu naan buy wax naan jigéen ñi laay gërëm du ma gërëm góor ñi mel ni ñun dañoo bokkul ci lislaam ah, ba pare di leen xool naan kenn ki ndax am nga borom kër wala amoo borom kër loolu ustaas ni war na ko de. xam naa dama lay yëgal man laal lépp xam na ma ko yëngal lii sa seytaane dong la bi masulaa neex waaye ka jàngal moo dàq jàng dégg naa li ma la aw nangu laa jàng baa fi ñëwee ba léegi du alxuraan du français foo ma la dugalu génn alxuraan gi ma la mujj dugal ndax dafa jël eh, àllu beeg xaaj sëriñ ñooñu ñoo ma jigul jiguñ ma ñooñu ñoo ma jigul waaw léegi ma jël loolu indi fii pour jàng dimbali la nangoo laa jàng kër gi mënoonu kaa bokk waaw man de man man sax damay damay préparé pour ñibbi kër gi xam ne paa bi respecté wul doom yi doom bi tey bàyyi sa taaw bu góor bi fële. faale woo ko muy defal nit loo sa affaire. waaw waaw yow wax sa doom bu góor ñëw na fii baal la ah, nga bañ na doo ko baal si weeri koor bi. ba mu waroon a ma ba ma a mel da yu bari fii ñu ngi seen doom yi ñu ngi bon. ñu laax leen ma ñoo. sa doom. kenn faale doom dana digal waaw. dégg naa ne ma. man damay pare ñibbi. rakk topp mag. sonn mag topp bàyyi loolu la ñu wax. gannaaw boobu man maa la bàyyam nanguwul maa topp du ma ko topp. waaye de xaw ma lu ñuy toppat dem. comme dégg man damay paree dem sax parce que kër gi dama fi découragé quoi. découragé naa ci kër gi nag man loolu ma bëgg u dem. njëlli maa ngi si dolli si njëlli juróomi téeméer nga joxe ma joxe téeméer mu ne juróom benn téeméer caay caay bi neexee niin saf ci koor gi maa ko dolli xamoon nag lu may dagg. Eh. ñu commencé maa teg péré si nji. Ah, aw mënu laa mutale dara. waaw jigéen aw kawas yi sol ba boo ba fu ñëw ba léegi kawas yi bënn laa la sol mënu laa jëndi kawas. man boo na kii mënu la mottali jël. jarul yàgg de aw dara laa mënu la mottali. kori rek ma dem. te kan ma xamal la benn affaire ba kër gi maa moom. waaw kori la fi fekk. dina ma fi fekk nag. nabu salvador bu ma ñawalee yëre bi tay tay ma ñibbi bu ma joxoon tisi bi tay tay ma ma ma dem man man gor laa kenn du ma laal benn yoon voilà dinaa dem de aw léegi fi ma ne fii doo fi oree de. xaaral ma ñëw dem sax parce que. mu ma la jig nag dogalu dem wax ne ma la toppee daal fi dóor te du ko jar waaw. ndax la bëgg a dee ko bëgg a dee nag ab géwél ba ba ba pêche <laughs> boo ko la xaar réew xamadi bu cataku ah ah ngi sa kanam doxal rek. ah maa leen oo oote bi nag oto bi jàmm rek ndax yéen énal mag njaboot te dama bëgg li xam ne moo la safaan si kër gi yéen jël ko fi teg fële ma bëgg nag yéen juboo doon benn ba ko defee lépp la mu uti si mbedd mi yàlla wërsëgal ma ko mu indi jox leen rawatina weeru koor wi nu ne dañu ne weeru koor laa si def rek si la baax rek dina la ko yokkal bon nag yéen ñi xam ne yéen a may soxna jàpp leen su loolu su ko defee ñaan yàlla rek a mu yokk du naw ah? loolu rek a taxaw mu oo leen de waaye du leneen. jërëjëf Alaaji. Hmm? maa ngi rafetlu bu baax waxtaan bi. Hmm. Alaaji mën a yow dañoo yàgg. Hmm. ndax la joor ba ko tubaab bi laajee loo bokk ak moom mën a yàgg. maa ngi yow yaakaar naa mosuñoo xeex. mosuñoo xuloo. mu muñu lu ne nag fii nii muñ naaf lu ne. aw mi mu fi ñëw. zipp la sol. di sol tubéy. mënul dara ci liggéey. mënul togg. mënul yekk <laughs> mënul fóot. ma bor sama ginnaaw gi di ko jàppale. waaye aw boo ko ne koo bañ mu ne kumba laa bañ. ahan kay ndax nag boo wootee waxtaan danga may may rek ma wax ndax ndew mii ci kër gi. nga di ko fay jël ko pour ñun ñaar ñëpp. fii lañ toog nga ne ma ndew a ngi nii yéen ñaar ko bokk maa leen ko jëlal mm-hmm. Mm-hmm. moom mu xëy suba ne ma ndew alaaji man la ko jëlal mm-hmm. ba ndew lu ma ko sant mu bañ man kay maa fi nekk di rafetal rek di bëgg lu baax rek waaye nag loo gis dafa am fu mu yem jërëjëf comme woote jàmm nga bëgg man loo ma woor naa la ci fekk si waaw ndax man damay nag toujours jot ñu yilif ma waaw ah, bala ngaa fekk si ci jàmm de wax moom dafa jooy rek ñu ne ko loo jooy man dañ maa wax tontu ba yotagut ba may ñëw fii di soli pantalon ak chemise boobu loolu laa tollool jàngaluñ ma dara hmm. yaa ko jàng moo tax ma ñëw nga jàngal ma ko fii ku fi wàcc ku ne ci loxo nga wàcc dañ laa wàccee ma ñëw nga wàcce na hmm. loolu kese la hmm. du dëgg mindaan ni ku ko moom koo ko jëlal loolu jarul la sax. déedéet dafa war a leer alaaji. Ah, mindaan mi dafa war a leer ndax cooba mindaan mi fu mu waxee wax ko. sama mindaan la na bëgg bu bëggee mindaan na ko dem uti. waaw déedéet ginnaaw ba mindaan mi sama mindaan la. waaw ginnaaw ba doon juboo rek. waaye dafa war a leer ndax waxi ëllëg la. Ah. mindaan mi mën nga ko jëlal. te yaa ma ko wax ne ma waxaaleel ma waxaale nga ne ma su weer dee ma fayal la ko mu di la dimbali. loogu jarul la ndax xale yi amuñ jot toog si kër gi togg ka yekk ka fóota ka paas. la wax loogu. waaw fa lan waxtaan a amul solo. dama ayee day am solo nag dayee solo. déedéet wuy ma bu ñu kenn dégg woy wi day am daane. ndew yaa maa ko bind. na bu day liggéey ndax moo may jàppale di la jàppale. Mhm. te ba moom kese mënut a engagé liggéey kër gi. Mhm. keneen ku a engagé na ko. loolu yëpp jarul la wax. ah kay parce que nettali xuloo boo gis xuloo la indi bu doon jàmmale ba kon li wax du ko wax. waa déedéet lan la jàmm rek. lan la jàmm rek moom doogu dara ay. jar na ko ba dee jar na ko nag. jar na ko de du ma na yooyu du ma ko nag. di wax surtout warul xëy ci seen diggante. Mm. Hmm? ndew ba leen man la ko bindal man lañ ko bindal daf may bàyyi ak sama jànq su bëggee jànq mu bind ko. du dëgg waaye loolu yëpp jarul la wax dañ koy wax ba mu jeex waaw kay na wax ji clair fii léegi ñu xam ndew kan lay liggéeyal. sinon ndew bàyyi ma bindi keneen. kese jaru ko jaru ko. voilà jaru ko yéen daal benn jubboo rek lépp baax du dëgg. Ah, fii daal ku hmm. bëgg respect ñu jox la ko. ku ko hmm. soxlawul kenn du la ko jox. maa ngi bëgg a jaaxle de. déedéet ba jaaxle.